dal leen ak jàmm mouvement Y en a marre ci surux la jëm ci nasax la jëm Walf Quotidien ndax bu ñu deful ndànk kilifa ak Simon ñoom ñaar ñi le ci kaso lañ jëm maanaam mun nañ faa téeri ji yéen cabinet bi le mouvement Y en a marre ak at yu takku yuñ fi def doon fi xeex démocratie demoon sax bay naan nouveau tipe de sénégalais maanaam sénégalais gu bees gu ñu dul toppee ci dara ku ñu dul gàkkal deram am ñu ci amal taxaw seetlu ci Walf Quotidien ci lu ñeel mouvement Y en a marre Mamadou Dramé di jàngalekat ca Pastef gis ne coow li ne coow boy ci mbirum passeport ak visa te ñu tudd ca Khalifa ak Simon Mamadou ne bile mbir mun naa sànk mouvement Y'en a marre ba sànkaale yeneen i mouvement ndax ci fàttali mouvement Y'en a marre yemutoon donc ci Sénégal ma nga doon béy waaram fépp ci àddina gi ba tax na bépp kuréel gu doon doxalee ni moom mun nga am jafe-jafe sociologue bii di Cheikh Tidiane Diop joxe ci xalaatam ne senegal jafe-jafe am na ndax dem nañu ba kenn woolootul kenn ndax ni mouvement Y'en a marre doxalee xel dootul mun a dal ci ñoom Mamadou Dramé féelu ko ne lu jëm ci mbirum trafic faux yemul donc ci kilifa ak Simon ñi ci des waruñoo seetaan ba bile mouvement di suux yéene kaabi di libération ne amaguñu liberté moom kilifa ak Simon ak Thier tey ji ci altine ji lan leen fas yéene defeere yéene kaabi ne am lu tukkee bees ci dossier bile bokk na ci gannaaw enquête biñ ci amal fii ci Sénégal jëm ci mbirum passeport ak visa gañu toppee kilifa ak ñeneen ak ñeneen gene kaabi ne police italienne ubbi na ci ab enquête ngir bëgg caa leerlu yéene kaabi di l'observateur ne mbir a ngi ni nar a gàkkal assemblée nationale te mu yu awul ci yoon te ñu jot député ci assemblée nationale yéene kaa bi ne kañ ca doon jëflanteel di El Condé mi xam ne koppar gu bari la doon séddoo ak député yañ ca tudd waa ji turam njëkkee ci o te sant ba tàmbalee ci tee déggal ne député Mamadou Sall diggoon na ko tukki ca Portugal keneen ku ci addu ci biir yéene kaa bi di l'observateur te turam njëkkee ci n sant ba dooree ci see ma ngay leeral nañu jotee seen passeport ya ak seen acte de mariage réew mi quotidien ba tey pënd mi wuréegul ci mbirum coowal passeport diplomatique yooyu le ndax bu weesoo ñaari député yu bennoo bokk yaakaar yañ ca tudd muy Mamadou tarbiya yi ndekete yoo am na beneen député ga ca tàq rip doon ku ñu ràññee lool ci coowal suuf foofee ca diwaanu Sédhiou te ñu bari jot ko faa kalaame yéene cabinet kooke la El Hadji Diadji Condé feeñal bees ne mooy ñetteelu député ga mu jëflanteel ci mbirum passeport diplomatique yéene cabinet la mandaane lu jëm ci coalition Yewwi Askan Wi moom Barthélémy Dias ma ngay tàllal loxo ay non aligné te féete ci kujéeg politique bi ngir ñu def ab say wutali élection locale ñuy jëm yéene cabinet Vox Populi ne dina jafe lool kujéeg politique bi soo bondoo ci yile élection locale ndax tasaaro ga feeñ yéen cabinet la olof njaay léeboon am na ay kuy du ñu bokk mbalka maanaam ay kàngam ci wàllu politique dina jafe lool ñu ànd ndax kenn ku nekk natt na dooleem ba noppi yéen cabinet ku demee ni Abdoulaye Wade Ousmane Sonko ba ci Bougane Gueye Dany dina jafe lool ñoom ñetti ñi le tënku ci benn coalition yéen cabinet Vox Populi te moo ne de ci atum gi weesu ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng Moustapha ci njiitu réew mi Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen fexe woon nañu ba tënku benn ko élection yéen cabinet critique ne ci élection locale yi ñu yoo te mënatuñoo nelaw ba yandoor ndax ñu ngi ci guddi gu bër setagul ci ñooñee mun nañ caa lim Amadou Hott Ndeye Saly Diop Dieng Abdou Karim Sall Dame Diop Mamadou Talla ba ci Moïse Sarr yéene cabinet ñoom ñi le kenn ku nekk bëgg naa am ndam ci élection locale ñu jëm waaye ko ci ñàkk sa gox mun na laa xañ lu bari ci géew politique bi ba ci kilifteef ga nga amoon ci wetu njiitu réew mi Macky Sall yéene cabinet enquête xëy di ñu jàngatal ni réew mi bindoo rawatina ci wàllu politique yéene cabinet gannaaw fitna ga woon ci weeru mars weesu ñu bari ci askan wi wàccoon ci mbedd mi doon ñaxtu ngir démocratie am ci mim bi di enquête gis ne way politique ya ca doon ñaxtu daanaka démocratie réew mi soxalatu leen lenn dong moo leen yitteel maanaam fexe ba fës wala boog am ndombol tànk ci élection locale yi ñuy jëm yéen kaa bi Walf Quotidien lu jëm ci tolluwaay réew mi doon lu metti lool mouvement taxawu askan wi ca mbedd yane ca géejawaay fa ñu doon ñaxtoo fa la ñu naqarloo yokkute gi am ci njëgu dundu gi yéen kaa bi ne googule doxum ñaxtu tàngoon jër ndax préfet moo ko aaye woon am ñu ca jot a teg loxo ci googule mouvement taxawu askan wi yéen kaa bi ne tegaale ak fitnaal gi nguurug Macky Sall dëkkee Guy Marius Sagna ne tey askan wi lottu nañu lool ndax njëgu dund gi cher na lool nguur gi ne kenn du ko fi waxee kenn du ko fi ñaxtoo Guy Marius Sagna yi wax yéene kaabi di turbine wax ci leneen di musiba ga am ca Saly ca résidence La Palmeraie yéene kaabi ne làkk ga fa amoon ca la njabootu Tavares fato maanaam borom kër ak soxnaam ak seen benn doom ci lakk googee ca la seen bakkan rote yéene kaabi di turbine ne chauffeur Moustapha Girassi bakkanam mujjee naa rot ci accident ga ñu am démb ca yoonu Tambacounda yéene kaabi bu dee député Moustapha Girassi ay gaañu yu metti la jëlee ci googule accident waaye chauffeur ba mujjul dund yéene kaabidi suñu lamb xëy waxtaane lu mun a dundal lamb ji ci saison gi ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci bira seen mi xamle na ci bëre dóor bi daañu xool naka la mbëri di sole ay gants ba ko ñaareel fexe ba aar ña dekkee ca peggu arène nationale ba ñeteel ñetteel seen CNG bira seen ne daañu fexe ba dakkal fitna gi am ci lamb ji rawatina seen ne dootul nangu ñaari mbër di jàkkaarloo te seen combat ma leen di yëgal ne ci saison gi ñu jëm maa ngi ciy xaar Seydina Omar Ba ba combat wis ma biteel ga may sekkiloo ba lépp lu ma góobee ci làmb ji ci ay million ma mun ko caa wis